naa ne euh, li ñuy gën a waxtaane mooy ci presse bi wala ci grand place yi wala ci kër yi mooy woote bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko pour waxtaan waaye nag euh, li ñu ci jaaxal mooy dafa woote waxtaan waaye nag continuer di singale opposant yi xalé yi nga xamné dañu doon manifester mbot nañu ñetti témèr yo xamné ëpp nañu ko bima ko laccé bi may ñëw ñu ngi leen téy ci kasso yi te nuñu ay to dooru ñu kefu ñu yëfu jàmbur yeen journaliste yi gis ngeen choono bi nga xamné ci lañ leen dugal kon li nga xamné moy woté président Macky Sall tuddé ko dialogue man lima japp moy manœuvre politique la bureau politique pour diviser l'opposition, Mme féwolé len waye y ci li mu né tambalé na ko parti socialiste sénégalais parti démocratique sénégalais PDS né woon le ngay waxtan bu PDS ci opposition la ko intercoalition

mo ne won ci procès Karim wad bañ ko condamné wér yi yépp ñu genn nak PDS ku ñu yëkëté cadeau rek tuddu nañ parti bo xamné ñu ngi ko créé ci 1974 daanaka dana am juroom fukki sa yu leen laajee rek yeen lu tax nu ngeen bok ci opposition bi dajalo di xex 3e mandat di xex pour que ñepp bok ci élection yi dañ la naan man mii Aminata Touré maa fa bokk moo tax duñ fa bokk buñ la ne ah, loolu lu tax ñu ne ndax moo condamné lu woon Karim Wade te ñëpp xam nañ ne ay tribunaux ñoo condamné Karim Wade bañ koy condamné la sax fekk na man ma jógee ministère de la justice waaye nag xëy na dina baax ñu fàttali li ñuy tuddee toujours la traque des biens mal acquis euh, nu mu commencé nu mu dooree. mooy 2012 sénégalais yi bëggoon nañu xaalis bi nga xam ne ñu ngi ko doon dégg corruption bi lu ne déggoon nañ ko fi ci scandale bokkoon nañ ci li ñu bëgg président bu bees bi ñuy fal mu lijjanti loolu mooy président Macky kon liñ naan demande sociale la woon ca booba jamono fukki at ak benn ci ginnaaw ni mu nekkee demande sociale fii ñu toog nii defe sénégalais yi bëgg nañu aussi ñu leeral 1000 milliards yi nga xamné mom lañ defoon ci Covid Cour des comptes wané né vraiment lañu ñu def dëppoowul ak yoon waaye loolu mom du gaaw donté procureur war na accélérer la cadence waaye loolu du gaaw ginnaw goro bi moom aussi dafa melni ci mbir mi yitt amna luñ ko ci waxal kon bi président Macky Sall fallo ca 2012. man mu nommé ma ministre de la justice lam ma sant mooy lii nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy xaar ci man mooy xaalis bu bari bi nga xam ne luubal nañu ko ah nañu fexe ba liggéey ci ca nañ doon topp nag ku mel ni Karim Wade musuma ko xam ko nuyu xaw ma ko donc awma benn xaar ma yàlla ak xaar ma yàlla ak moom lu dul ma doon def suma liggéey te poste bu ñu ma joxoon it muy sport artisanat bu mu ci munti wala doon voilà na ca saware won ak na ma ca defe woon la ca waroon def non la koy defe kon masuma jox instruction manam procureur masuma len wax lanu wara def lulul top len sen seen liggéey ak li yoon wax defe naa ne procureur bu créé monsieur Ali Ndaw wax na ko bu yàggul

ba nu defee procès ba Karim condamné la président Macky Sall euh, avant peine bi di jeex donte yoreel nañu 138 milliards 138 milliards qui, ci suñu sénégalais yi contribuables sénégalais ne woon ne milliards qui xam ne des comptes jotoon nañ cee teg loxo euh, communiqué communiqué au gouvernement président Macky ca jamono jooju confirmé na loolu président Macky Sall ci boppam jël na kàddu ne akay ah, loolu kay lu am la euh, ku dugg ci Google rek li nga mën a mës mën a gis la nga xam ne jot na koo wax waaye tey la ma doon wax ba ma PDS di topp rek singali ma ne ma voilà Aminata Touré moo tax ñun duñu ànd ak opposition moo tax duñu bokk euh, F24 la ma doon wax tontu ba mooy dana nii ndax lii ab diil la diil bi nag tey la feeñ ñoom ak président Macky Sall ñoo bokk di organise booy seet lii ñu tuddee dialogue waaye la cay am nag mën naa leen koo wax te mën naa koo bari yi PDS dana ne waaw président Macky Sall bu ko conseil constitutionnel mayee war naa mën a nekk candidat loolu moom danañ ko dégg buñ cee yàggule it dañ naan

donc nous avons ña intercoalition opposition alors, nous avons bokk sax ci initiative opposition opposition ba mu defee motion de censure wate wu une ko ba ñu nee dañu bëgg a def haute cour de justice ci affaire le ministre yi nga xam tout le nañ leen 10 euh, milliards de fonds covid bi wate wu ñu ko waaye nag ba Benno Bokk Yaakaar moom indee seen décision de dañuy Euh, fokkati mandat wu Aminata Touré booba moom wote nañ kon lii nga xam ne la ñu def ñu ngay voilà deal ak président Macky Sall yàgg na wane nañ ko sax ci assemblée nationale bëgg nañ nag organiser benn liñ naan dialogue toog waxtaan waaye waxtaan boobu yëpp pour am lu ñu jox opinion internationale maanaam sénégalais ak aussi. sunu partenaire bitim réew yi waaye liñ ci jublu mooy ñu effacé maanaam amnistie Karim Wade 138 milliards ya nga xam ne yoreel nañu ko te taxul looloo tax ñibbisi wut ba tey ñu dal di ko effacé waaye nag okk mi rokkam loolu la président di joxe waaye li nga xam ne moom la ko PDS di jox mooy Si nous toogee le conseil constitutionnel nous avons décidé ko nous décider candidat Le conseil constitutionnel décider le président moo war a candidat comme ay est le conseil constitutionnel ëppul sénégalais 17 millions de dollars. Le conseil constitutionnel amul pour petite décision yi nga sénégalais yi jël nañ 2016.

kon loolu xam ne yaa ëpp man xam peuple sénégalais bi ñu doon kon fi ñu toll dootul laam-laamee lu constitution wax ba conseil constitutionnel di ñu ci gindi déedéet loolu xam nañ ko waa conseil constitutionnel ñun ñi yëkkati woon suñu carte wate gënuñ ñoo xam nañ doon wate lu mu doon fi ñu toll jamono jii nous ñu appliquer la constitution Madame, la constitution wax ñu def constitution wax Le président Macky Sall def na ñaari mandat kon jeex na na candidat bu ko nexé wala bu ko nexulé it mu sét naka la bëgg a mom mën ta nek candidat kon lolu moy dialogue bi ak la nga xamné mom la ko man vous. nga xamné mom man la singalé Vous ma tax suis tax accuser ki nga xamné co-organiser

bam mu des moom ndax constitution bi wax na lu leer fi ñu toll fii ci Sénégal nag dafa mel ni suñu démocratie bi dafay dellu ginnaaw ci ni nu ko gëj a gisee loolu nag démocrate yi waruñ koo nangu waruñu koo nangu doonte ñun dëkku jàmm la lañu Sénégal dëkku jàmm la Sénégal pays de dialogue def naa ba depuis temps président Senghor ñu ngi koy wax man mii jigéen. doon yaay doon maam xam naa ne jàmm moo jig njaboot moo ñu jig loolu xam nañu ko waaye nag mënoo ne ay sa ñu dialogue ba noppi yow sa karawaas voilà di emprisonné ay xale di tëj yéen ñi journaliste yi seen ñaata naataangoo ñoo ne ci kaso bi te pourtant président ne woon na ci ayam kenn du tëj journaliste di faagaagal ay opposant ba noppi nag ne ay ca leen ñu wax kon loolu li ñu ci jàpp mooy président Macky Sall du waxtaan lay président Macky Sall li ñu naan manœuvre politique politique lay def te nag ka ko ña ko ñay jàppale ak ka ko ñay jàppale mooy parti démocratique sénégalais bu ma ko doon misaal dama naan boo jëlee fukki sa fukki baaraam seen benn baaraam lañ bàyyi ci opposition bi ndax intercoalition la ñu waaye juróom-ñeent ya ca des yépp ña nga kër président Macky Sall ñoom ñoo ànd.

conseil constitutionnel bi yoonam nekkatul ci mbir mi parce que ñun sénégalais yi réglé nañ ko ba pare loolu euh, dafa war a leer moo tax vraiment ñu ngi woo jeunes yi jeunesse bi ñu ngi woo soxna yi ñu ngi woo borom kër yi les hommes voilà ak ak at bu ñu mën a di woo kilifa yi kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa syndicaux yi association yi mais aussi du haut les femmes tout particulièrement ñu xam ne lii ñuy def sunu bopp lañ koy defal aussi sunu nous yi lañ koy c'est un présent ak seen avenir kon nous avons nañu takku mobiliser wu bañ a def ginnaaw ànd ak démocrate réew mi ànd ak plateforme des forces vives F24 bu ko defee sunu démocratie liñ fi jot a am muy les acquis démocratiques te nous avons ko amuloon président Macky Sall kon lu toog fa mu toog président Macky Sall ni muy def opposant yi bu ko doon def buñ ko ko defoon kon moom du doon candidat ndax jot nañ ko fee woo commissariat te nañ ko mujj bàyyi mu ñibbi moom ba ñuy foqati mandat wu Moustapha Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye la ma ca wax mu ngi fii ci seen vidéo yi ne woon na c'est illégal dañu dañu violer la loi loolu la santaane pour ñu def ma ko pour foqati sama mandat ak yeneen yi yeneen ak yeneen ñun ñii ñëpp dañu àndoon ak moom ca place de l'Obélisque

Nous faisons aussi organiser élection yo xamné yu jaar merci euh, journalistes qui aimeraient poser des questions vous vous présentez vous présentez votre ordre de presse les attributs d'un parti qui, dans son ADN, plus privilégie le dialogue. Et deux fois, le maître Lawat est dans le gouvernement. Aujourd'hui, le candidat est actuellement au Qatar. Il est décliné. Pourquoi Pour n'accepter pas. Le Parti démocratique sénégalais, qui est reconnu comme un parti qui privilégie toujours le dialogue pour que tous les candidats puissent participer en 2024 comme pour le soutenir. Pourquoi vous n'acceptez pas Pourquoi vous dites toujours que le PDS est dans un pays Qu'est-ce qui prouve ce que vous dites Que le PDS est dans un, deal, alors que depuis 1974, nous savons que le Parti est est un parti qui est toujours avec le, le parti au pouvoir. Merci. Merci. Euh, Merci, Madame la Présidente. Moi, c'est moi, je journaliste au quotidien en tête. Euh, d'abord, c'était pour revenir sur euh, euh, les milliards de la traque des biens vie. Effectivement, Madame la Présidente a parlé de plus de 200 milliards qui auraient été retrouvés à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, elle a de une communication pour renseigner un Et je la cite, les, le, à l'époque pour ces le recouvrement. On surtout l'affaire Eglon avec les 47 milliards. C'est la présidente qui le disait. Il y avait des comptes de Kaniwad, notamment mon en sont des comptes toujours. Il y avait ARS, 50 milliards. Mais le problème, c'est que tous ces chiffres-là n'ont jamais été retracés dans les différentes lois et finances ça ne pose pas dans un État comme le Sénégal Est-ce que ça ne mérite pas une enquête pour nous dire effectivement où sont passés ces milliards qui ont été recouvrés, dans quelle loi de finances elles ont été retracées Donc, c'est ça la première question. non, le gouvernement à l'époque avait des pour dire qu'effectivement de l'argent a été recouvré. Mais seulement, il y a une différence entre ce que disait le gouvernement et ce que disait la présidente. Euh, le gouvernement, euh, effectivement, parlait a effectivement entendu parler. Il s'agit notamment euh, des 75 milliards de métal, des 39 milliards de militants Tigo et des 24 milliards de Dubaï Power, entre autres. Donc pour dire qu'effectivement le gouvernement avait parlé de l'argent de recouvrer, mais ça n'avait rien à voir avec l'argent dont vous parlez. Là aussi, si je peux avoir vos éclairages, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Euh, sinon, euh, l'autre question, c'est par rapport, au paradoxe dans la démarche. Euh, madame la Présidente, vous invoquez des arguments. L'argument selon lequel Karim doit être écarté parce qu'il a été condamné par la justice. Sauf que euh, vous avez, quand il s'agit de Ousmane Soko, par exemple, c'est la justice qui le poursuit. Mais vous, vous semblez vouloir écarter en fait euh, cette poursuite contre Ousmane par rapport à cela aussi, euh, comment vous l'expliquez Puisque apparemment la question dérange, je Madame la Présidente. Merci, écoutez s'il vous plaît. Voilà, on laisse le soin à Madame la Présidente de répondre de ces questions. Mort, ces questions ne nous dérangent pas. Vous êtes un journaliste, vous avez le droit de poser des questions. Ce sont vos confrères qui murmuraient et non les militants de 2024. Merci. questions sont objectives, je n'ai pas de problème avec cela. Mais je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas dialoguer. Et je n'ai jamais interdit au PDS le choix de vouloir dialoguer. C'est un parti souverain. Seulement, le PDS aurait dû prendre son courage à deux mains et assumer. Un parti qui a 50 ans, qui a donné comme argument « je ne vais pas faire partie d'un rassemblement de l'opposition » parce qu'un individu nous aurions fait tort, ça c'était manquer de courage. Ben, nous sommes prêts à voilà, dialoguer avec le président, etc. Aminatou Touré n'a rien à voir, Ils le savent bien, dans cette affaire de Karim qui a été condamné par les tribunaux sénégalais. Comme ministre de la Justice, j'ai fait mon travail sur instruction du président de la République. Ils le savent très bien. Mais pendant des mois, j'ai fait l'objet de leur calomnie sur toute la presse. Et voilà qu'aujourd'hui, on voit quelle en était la raison, en réalité. Il s'agit effectivement d'un deal, mais il fallait juste l'assumer. Pas essayer. Et on a vu dans la démarche, parce que le BDS est parti de la intercoalition de l'opposition, elle a voté les lois. C'est son droit, si elle le veut, mais il faut l'assumer. Elle, elle s'est désolidarisée de toutes les initiatives de l'opposition dans l'Assemblée nationale et à voté avec l'institution de l'Assemblée nationale. Mais tout cela, ce qu'il faut expliquer aux Sénégalais, c'est que voilà ce qui en était la cause. Je ne leur euh, dénie absolument aucun droit comme parti politique. Mais avoir voulu jouer avec la conscience des Sénégalais, là est le problème. Et c'est moi qui étais l'excuse. Une personne. Voilà ce que ce qui euh, est <coughs> la chose et l'affaire est très claire, c'est de cela qu'il s'agissait. Pour ce qui concerne euh, les 200 milliards recouvrés, je vous invite à aller sur Internet et prendre les, la déclaration du président de la République. Avant ça, je vous renvoie au communiqué du gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je vous signale que je n'étais pas ministre de la Justice, que je n'étais pas ministre des Finances. Donc ce n'est pas à moi de savoir ensuite où va l'argent et euh, ce qu'on en a fait. Je pense que quand vous verrez le Premier ministre, qui, était déjà à l'époque ministre des Finances, bah, n'oubliez surtout pas de lui poser la question. Parce que cela a relevé de ses compétences. La troisième, la troisième question mais Karim a été déjà jugé par les tribunaux sénégalais, il nous doit 138 milliards, oui ou non C'est le cas Il a été jugé, il a été en prison. Et lui, on va l'absoudre, et peut-être qu'il sera candidat, et je l'assume. Et je l'ai dit plus d'une fois, par un procès bilan, vous voulez éliminer un, opposant. Ça, je l'assume. C'est la réalité, c'est ce que pensent tous les Sénégalais. Parce que si on croit qu'on est plus malin que nos compatriotes, on se trompe. Tout le monde a compris les manœuvres. Et ça, il faut que la justice refuse d'être le bras armé de projets politiques. Ça, c'est important. C'est un appel également qui est lancé voilà, à la magistrature, tout comme on lance un appel aussi aux forces de l'ordre qui doivent rester républicaines et nous saluer quand les choses étaient tendues, la fraternisation et les jeunes. Et c'est normal. Et c'est une fierté quand on le voit, parce que nous retournons tous dans les quartiers. Dans les quartiers où nous arrivons, dans nos familles, nous avons des policiers, nous avons des gendarmes, nous avons des militaires. Et ceux qui manifestent, ce sont leurs frères, leurs, leurs, enfants, etc. Nous les, nous les invitons encore une fois à privilégier justement cette démarche qui les honore. Parce qu'ils ne sauraient non plus être le bras armé de qui que ce soit. Voilà ce que je voulais dire. On prend deux autres questions. Une dame, oui. question de constitution. Parce que ce sont les Sénégalais qui veulent réélire le président Macky Sall. Donc le président a changé d'avis parce que les Sénégalais ont changé d'avis. Et le président a raison de changer parce que les chantiers qui ont été faits et l'ensemble de l'œuvre que le président a fait au Sénégal fait que le président Macky Sall doit faire le deuxième quinquennat. Merci. Bon que vous souriez un peu en posant la question d'ailleurs Parce que euh, ministre Ismaël Amadou Fall xam-xamam moo c'est un constitutionnaliste moo taxawoon ne nul nul yéen koy de trois fois donc xam na ne bu dee droit il faut wax dëgg yàlla am sur son peut-être nee

il s'est rendu compte que en matière de droit il n'avait plus d'argument il a glissé dans le domaine politique le président de la République il est tenu par le respect de la constitution mais il n'y ñu pas cette constitution a ay

et STV. Bon, je vais revenir sur un sur les épisodes précédents. Madame Mimi Touré ba nga nekkee si coalition Benno Bokk Yaakaar gis nañ ne yaa nekkoon tête de liste nga diriger affaire bi ba nekk rek assemblée nationale ñu gis ne ba affaire yi sottee da nga ko jugee di tàgg jugee fa li nga jotul moo tax nga jugee fa loolu laa bëggoon xam nga leeral pour Sénégal mu xam peut-être bu nga defoon président assemblée ko jug doo

question bi est-ce que êtes d'accord le président Macky Sall ne war un troisième mandat est-ce que vous bu boobaa du l'assemblée nationale parce que mbir mi foofu la fa troisième mandat mosuma ko diggante juillet 31 juillet ba ñu voté am résultat yi 12 septembre jour bi ñuy voter pour le président de l'Assemblée nationale je n'ai jamais varié de position su ma ci bëree woon taxaw ci télé bi parce que ñii lii ñuy def man maa leen ko daan la preuve ah saa yu président waroon a jiite dara ji politique man la ko daan jox ah kon loolu bu dee argument bi mel noonu rek mënoon naa ko ah waaye gëmu ma ko waaye waaye waaye gëmu waaye gëmu ma ko dama jàpp ne Sénégal aussi kàddu daf fi am solo parce que fi ñu ba jàppale président mu nekk président de la république démocratie la woon engagé woon nag Sénégal ne régler la question bu troisième mandat lay cëram mooy mu tënku ci cadeau, bàyyi fi stabilité bàyyi fi jàmm chantier yi nga xam ne def na ko ñu continuer ko ko ci jàmm ak salaam Sénégal continuer di wéy ay alliés nag du fii la ñu koy lijjantee ñu ngi waxtaan et dinañu fexe effectivement ba am coalition bu jàppale. Euh, Mimi 2024 maa ngi leen gërëm di leen sant di leen souhaiter encore une fois une bonne fête du premier mai jërëjëf